sant li fi xew léegi mooy di gërëm mbër yi di gërëm it ñi yor làmb ji di gërëm ñëpp nañ waxtaan wi ay sénégalais lañ ñun président Macky Sall moo ñu wóolu dénk ñu département su suñu département amee ay yëngu-yëngu liy yoon mooy ñu invité noonu ñuy toog waxtaan

moom rek yoru làmb ji ñëpp bokk ci làmb ji même bu fekkee ne ñoom ñooy def pratique affaire bi déglu naa leen am na ci lu ci nit mun a dégg am na ci loo xamante ne nag du lu ñuy réclamer autorité mu ngi dem ci na fi CNG bi jóge nañ fi jóge léegi léegi wala sanction lak de Guiers bi na jeex léegi léegi léegi loolu defe naa yaramu tàng moo koy def waaye organisation duy demee noonu nit bu ñu la suspendre da ngay bind demande de xool ñu étudier ko defe naa ne loolu liggéeyu CNG la. CNG bi teguñu fi seen bop motax mané len na ngeen japp né fi tay parce que man ci dëgg lay dox lépp lu mën di xew ci kaw CNG bi ngeen diko wax le premier responsable man miñ jox ay prérogative ma tan len la su ngeen amé lu ngeen té te sama yi bunt li len war moy ngeen uti délégué ñu tok di waxtan di régler li ñu wara régler te fatali na len nit ne bañu téggé xéru bu nasional arène nationale bi li ñu wax moy comme dañu am jumtukaay bu bees boo xamante lu bëri day changé kon dinañ dem ci waxtaanaat ba changé texte yi pour mu adapté wu ak lii nga xamante moom la fi président Macky Sall andi loolu it bi ñu ko waxee xam nañu ko wóolu nañ ma ci nee naa leen nag ay mbër ngeen mais gënul ñun ñëpp bëgg làmb nii ngeen def woyu si ma won ne ne jox ngeen ma cër loolu laa bëgg ngeen continuer ñu continuer waxtaan bi ak ñi ci bokk yëpp ba nga xamante ne dinañu mën a améliorer cadre bi nga xamante ne moom ngeen di defee seen tàggat yaram te ñu fàttali na nag CNG bi yoru làmb dóor rek dafa am yeneen façon làmb yoo xam ne yor nañu ko nit nag eh, ñun ñëpp bokk làmb ji famille lañu communication bi dafa war a permanente mais lépp dañ ko war a teg ci organisation parce que lépp lu amul texte du sotti làmb dañ koy organiser moo tax mu mën a yegg si fii mu yegg si jamono nag day dox ba nga xamante ni li xewoon en 1960 boo ko defee en 2018 du ànd ak li xew mais li ngay def 2018 mën nga ko bañ a def 2020 donc texte yi dañ fi nekk pour ñu leen di améliorer kon kay loolu jarul yëngu-yëngu jarul coow surtout mille dix 2018 bi nekk 2018 boo xamante ne mbégte képp ku bëgg làmb la je dirais même képp ku bëgg sport parce que ñu ngi liggéey pour que Sénégal nag nag un sportif parce que bu ñu amee Dakar Arena war a am lii war a am yeneen lii nga xamante moom lañ programmé pour def ko ci réew mi warna nek lu am solo lo xamanteni nit ñi dañ wara joxante loxo dans la générosité mais dans la sérénité pour que rëq-rëq yi baña nek un blocage ba nga xamanteni discipline yi duñu duñu dox li ñu wara dox te bima ma leen ko waxe nak ci bir salle bi ñun ñep déggo nañ gis ngeen bi ñu génnee ñëpp a tàppante eh, bu fekkone ne dangar la it dangar di am na lu ci wacc li ci dess moy continuer waxtaan avec tous les acteurs pour aller vers des des concertations pour améliorer effectivement les textes qui régissent la lutte mais aussi renforcer le dispositif pour mieux encadrer la lutte loolu moom mooy waxtaan wi ñu def tey ngoon non loolu loolu xam nga euh, nit bu yaramam tàngee des fois day day day day day jaxal waaye ku bëgg a làmb xam ne lii ñuy wax jotewul ak ay réceptionné arène ak leneen ak leneen xam nga mbër du feesal làmb amateur mooy feesal làmb amateur mooy fay biem nekk ci danger toog defe naa ne nag ku doon toog ci dër bañ andi la chaise nga war a seetaan làmb dëgg-dëgg loolu mbégte la boo xamante ne bu ñu ko defee ay boycott ak loolu kenn xalaatu ko defe naa ne bi ñu ko waxee comprendre nañ ne loolu c'est pas une arme de combat parce que benn arme amu fi li am te muy arme bi ñu war a téye ñun ñëpp mooy la sérénité nekk dans une dynamique de construction loolu moom mooy tax ñu am produit buy jëriñu askan wi waye du ay boycott ak ay yu kan xamul yoy defe naa loolu sax eh, bu ngeen di restituer di ngeen xam ne dañ ko ci dugalon waye lu ci waruloon nek la di wax nañ fii ñom ñep amul ku ci yëkëti kaddu te mo président Macky Sall ci lim leen defal képp ku fi yëkëti loxo gërëm nga l'état du Sénégal gërëm nga le ministère des sports gërëm nga le président Macky Sall ci érection bi nga xamantene mom moy mooy arène nationale et je tiens à dire que ñi ñu jara defal lañ parce que buñ la nga xam lu am solo la tay arène national bi dina wane ne ku naan làmb amul solo di nga wàññi dose bi nga koy waxee parce que làmb dafa bokk ci suñu li ñuy def te làmb lu ñu ñu bëgg ko ñu bañ ko c'est une machine économique quand tu as un combat de lutte xam ngeen ko jaaykati caaf yi dinañ ñëw jaaykati gerte yi ñëw ñiy jaay journaux ñëw ñi jaay leneen ñëw et d'ailleurs je me de vous avoir en face yéen ñii nga xamante ne ci làmb ji ngeen ne am na fi ay journaux yoo xam ne ci làmb rek lañ jëm bu làmb amuloon solo loolu du am donc nous jox gëdd suñu sport national encadré ko dem dans le sens positif su ko defee lépp dina régler lépp dina améliorer. wax naa encore, ko avons un man sama objectif Nous ñu une fédération mais faudra-t-il que fédération nous jël garantie nous yóbbu nit fédération c'est des textes nous naa leen Il y a une fédération mais bu fédération amee la ngay def face ñu baal la avons dootuñ la ko mën a parce que liy sanctionné mbëru face bi mooy sanctionné sanctions jaxaw ba ma dëkk te bu Boba, la place des VIP day changé mais entité yi composé dafay am texte yu leen di régir ñun xam nañ nag ci làmb fii Sénégal lañ dëkk dëkkuñu feneen xam nañ ni làmb ji demee da ngay gis sax écurie boo xam VIP bi mooy chef ba mais bii bu ñu demee fédération le patron sera le président nga xam ne mën sanctionner sax le VIP mais lolo am ci club yi lolo am fépp motax tax ñu ngi koy wax waaye matway yi ci nek buñu démé ba jukki len di texte si yee len bu boobaa maa ngi leen di ñaan ñu nangu ko te xam naa ne boobu waxtaan moo koy andi pour ñu mën ko nangu parce que du ñu jël benn discipline rek plaqué ko ci beneen discipline dafa am ay réalité yu ñu ci war a dugal mais ça c'est un processus et la la réflexion a démarré fii ci cadre cadre yi fi nekk et on ira vers vers ça mais c'est pas demain c'est pas c'est pas aujourd'hui c'est pas demain